Sunubuzz TV HD ci toute l'actualité. waatee ba noppi rek kon dañuy yëkkati kàddu tuuti rek ci Pape Diop mi nga xam ne fekki na coalition benn Bokk Yaakaar pour jàppale président Macky Sall pour mën a am majorité ci assemblée national majorité bu ko mën a may mu fal président assemblée national bi léegi bu président Macky amee loolu nag day mën a fal président assemblée national mu dese ko nag. majorité absolue majorité absolue nag am ko mooy tax nga mën a jàllale say projet de loi loolu nag li koy maye mooy quatre-vingt-dix-neuf députés kon Macky Sall war naa mën a jëndaat quatorze députés ci opposition bi ak ñaari yi des fële wala boobu mu am seize députés ci wàllu wàllu ak yeewi wàllu ak yeewi soxla na ak euh, Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall lu néew néew Macky Sall war naa récupéré waat ci ñoom seize députés mu nekk quatre-vingt-dix-neuf députés. bi Pape Diop ñëwee muy soog mën a jàllale nag li nga xam daal mooy projet de loi am du ko neex sax sans débat parce que loolu li koy maye mooy majorité absolue 99 euh, députés kon nag yëf moom yombagul xëy na nag mën ngaa taxawal assemblée nationale boo xam si président bi sa làng féeti voilà waaye nag ba léegi euh, dese na ko lu bare bari lu war a